programme woon lu jógee koo ci man sama ministère wala ci préfet préfet ba wala sous préfet ba wala ci délégation spéciale bu bees ba waa dëkk ba ñoom ñoo programmé seen ñaxtu dem ca booru gendarmerie la ca am loolu dépendre ci Aliou Sow lu ma nga dépendre ci affaire sécurité ak défense lu affaire kaaraange réew la mm-hmm. man doo ministre bi yoroon kaaraange réew yoruma sécurité yoruma protection sociale protection civile yoruma défense élu fu police élifuma kenn koo xam ne ni yaa yoroon kaaraange ci wàllu loolu. pourquoi ñu bëgg maa seppi ne Aliou la moo tax ma ne duma ci wax. li ma ci waroon def mooy mbiru jullit ak jullit mooy son samay dàll dem jaale mais dem nga ma déggee ñu ne comme que coow li bari woon na bu mu ñëw may nag dox jàmm na bu la naree indi ay nga summi say dàll toog moo gën yoonu jàmm solo. kon amoo ci benn cas de conscience daal ci gàttal. Euh, xam nga duma ko waxee noonu buñ la tooñee sax jiiñ la loo xam ne ni defoo ko. te bakkan rot ka rot la bakk bakkanam bàyyi njaboot bàyyi yaay bàyyi jabar mhm. bàyyi doom kooku bu daloon sama rakk wala sama mag mhm. wala sama mbokk dina ma métti mhm. ku bu dalee ab doomu Sénégal te man ma nekk doomu république doomu démocratie man damaa féetale sama bopp Sénégal féetaloo ma sama mbopp mbokk wala xarit wala dëkkandoo wala dëkk damaa may sama bopp Sénégal bi nga xam ne nii ci laa amee lépp ci lañ ma xamee ñu dénkee ma ci lépp donc loolu am naa ko ci àddina yi gën xolu muñ ak may leen loo xam ne ni dañ koy mun di gën a ñaanal ci muñ ak nekkin gu rafet njoboot gi yëpp am jàmm ak salaam te ñi nga xam ne aussi ña ngi ko doon politiqué bu nekkee lañ bëggoon am nañ ko mooy fàllu tey mm-hmm. defe naa nañ xam ne aussi bakkan foor na foor goo xam ne ni kenn du koo fooye di ko bant barete di ko yëkkatee jëfin goo xam ne wax sax xam nga ne la koy la ci tax a jóg politique rek moo la ko tax moo la ko tax a def. Mhm. monsieur ministre Aliou Sow ñu dox ci biir euh, émission bi élection législative yi romb nañu. Euh, jamono ji euh, mën nañ jàpp ne installation assemblée nationale daanaka benn surprise amu ci dama bëgg taxaw d'abord ci. résultats yi seen résultats yi ndax euh, gis naa la fan yi nga def benn sorti bu am solo euh, ci benn journal wax fa yoo xamante ni nii man euh, defe naa si yow laa ko mos a déggee ci koo xam ne yaa ngi ci parti démocratique sénégalais ba léegi te it nga bokk si ñi ñi ñuy tuddee les barons wala bokk daal ñoo xam ne daal bokk nga si ñi fa gën a fës nga ni d'abord Euh, bu ñu dalawaatee ci ginnaaw résultat présidentiel yi euh, résultat yi ngeen ci am yéen parti démocratique sénégalais parti au pouvoir gàcce bu mag la. xam nga dëgg neexul mais bu ko wax jot bu ko bu ñu ko waree wax dañ koy wax. Mm-hmm. ki gën a jafee xelal ci àdduna mooy kii nax boppam. Mm-hmm. ak ki ni jaxran ak weer wi wala ja jant bi dinaan gisuma dara. Mm-hmm. kooku neexul waxtaanal. PDS li ñu def ci Sénégal. ci opposition ak ci pouvoir sunu kilifa ka ko sos Ablaye Wade li mu liggéeyal Sénégal ci démocratie ci développement ci koom-koom li mu liggéeyal Afrique ci jàmm ak salaam ak màggal der bu ñuul ak turu Afrique bu ñu demee ba def fukki at ak ñaar ci bopp réew mi dem wote ci xëccoo téeméer yooyu jël ñu am fanweer ak ñeent. Mm-hmm. ci xëccoo bu njëkk ba ñu demaan ñaareel ba ñu xëccewaat ko am fanweer ak ñeent dara yokkul ci presque. ñëpp ñu ñu ñëpp war ñu ndomb nag ñu waxee ne jàppale leen keneen xeex leen Ablaye Wade nit ñi dégloo leen comme comme ku doon defee ndigal kenn wàññeeku ci kenn busu ku mu matu ku sa say gët mm-hmm. nga toog saytu ko yaa ngi nax sa bopp mm-hmm. man dama xool man damay gëstu parce universitaire la dama xool Afrique bi mooy boppam ba tey mooy réew yu njëkkee ba tey jamono ab bi jamono 60 wala sax lu jiitu 60 mm-hmm. ku mel ne ay 40 nangam ay Libéria 48 yooyu yooyu boo ko boolee ba tey ji ñeen juróom fukki dëkk yeeg ñeenti Afrique am man dama cee gisul benn boo xam ne élection am na fa nguur ga ñu ngànkoon réew ma daanu jël bi leeree nañ bi ñu daanoo ñun amul 34 pour cent muy gisuma benn régime ab Abdou Diouf dana fi ñaar fukki atu président fukki atu premier ministre ñu daan ko ci deuxième tour mu amoon téeméer bu ne ñeent fukk defe defe na ak ñeent ëpp ñu fukk ay fukki poñ ci loolu loolu nag ku mu tiitalut mm-hmm. nga toog xalaat saytu moo ko andi boo bëggee avancé ne da ngaa bëgg a dellusiwaat yoon nga jël nekkul yoon wa gën a gaaw bu gën a dëng wala bu gën a yéex nga jël moo tax man bi lu amee man dama ci ànd ak dal ak kel ak nangu dogalu yàlla ak gëm yàlla ak nangu ne askan wi am na lu ñu wax mm-hmm. comme que nit ñaa ngi jàpp ku nekk di wax lu la neex ñu teguñ ci ñetti weer dama wote député mm-hmm. askan wa fa ñu jaaroon jaaraat fa loolu la mu tekki mooy yéen daal pare nañ ak yéen ci ni ñu leen gisee an ngeen taxawee bu nekkoon liggéey bu rafet kott la soppi Sénégal yokk koom-koomu Sénégal wuyu senegal taaru Sénégal teraanga bépp sénégalais. Mm-hmm. li Ablaye Wade def na gëw ma ne am na moromam ci njiitu réew ci Afrique bu ko def man dama jàpp ne gàcce nga la ma loolu ci Ablaye Wade. bu mm-hmm. nekkul ne dama koy xam man sax Ablaye dama ko matul seede. Mm-hmm. ndaxte sama xol ci moom sama yéene ci moom sama cofeel ci moom ak sama jàpp Ablaye Wade tax na bu ma ciy wax du ci ànd euh, waaye nag. bu politique desee ak Sénégal bu mais Sénégal nag bu taxawee moom du ma ko yemale kenn. ak lenn waaye loolu ñëpp teg nañ seen i gët même ay wujjëm xam ne liggéeykat la. bu lu amee tey ñu dem élection député seen PDS ni mu toll ñeent fukki député ak ñaar ñeent fukki raison ñeen fukki département ak juróom. ñaar lañ ci am. te ñaar lañ am sax xam nañ ne du PDS a ko am. boo demee Koungheul Momad Dieng lañ woteel moo fa nekk nit ku yàlla may wërsëg. mu am teraangaam bokk nit ñi dëkk fa nekk fa ak ñoom. ñëpp ànd ak moom moom lañ fal bu nekkoon liste boppam la def day gagné. Mm-hmm. du PDS a gagné de moo gagné boppam. Kédougou la mission ma fa am. Mm-hmm. parce que bu nekk ñu jiite ngànk parti bi muy man Aliou Sow mi di Souleymane Ndéné Ndiaye nekkoon premier ministre muy Oumar ma jiite mm-hmm. dëkk dëkk président Abdoulaye Wade muy ñëpp. bëgguñ mu xam nga mënoon naa bañ a joxe tur mais sama bopp laa tàmbalee ah, pour mu leer nañ ñun ñi neen ñu ngànk parti bi ku ci ne département nga dëkk yàlla mayu nga jëli député fa nekk jox ko Ablaye Wade wala jox ko PDS. Mm-hmm. ñëpp a perte seen département. Mm-hmm. gis naa ne gars yi di sa bopp la. ah c'est pas sérieux non sa bopp la. wote député du affaire commune Talla ak ay affaire commune. Mm-hmm. affaire département la. ndax gañ nga sa département nangu député fa nekk jox ko sa parti am déet mooy am. kenn ci ñun. defu ko. ñu fi nekkoon ministre wala député wala premier ministre. war nañoo toog ku nit ñun xoolaat sa bopp. évaluation ndax ci ñun la wala ci parti bi la. Mm. wala ci ñi ñuy xëccoon la. Mm. waaye nag bu ñu fàtte aussi am lu ma ci jàngate ñii dañoo ànd nekku say. Mm. utandoo amandoo. ñu féewaloo di xaxarante di xarabante di xasante nit ñi tiit ñu ragal ñu woon ñu ginnaaw loolu li mu li mu tekki rek mooy sénégalais yi mm-hmm. ñu nekku say ànd nekku saabaar bañ a bus lañ que ñuy ñëw di reyante seen biir mm-hmm. di xarabante di xas di xasante mm-hmm. jàngee naa ci aussi sénégalais yi même ku fajul seen soxla jox leen cër bu mat sëkk mm-hmm. te nang leen woon jikko ju méngoo ak cër yi ñu ngi dañu fonk lool sàmm kàddu xam nga li ñuy fàtte Afrique li Sénégal bokk ci bala tubaab bi fi ñëw ñun xamuñu signature jël big jël pilim ci kayit nga signé. Mhm. xamuñ kon xam nañ lu ñu doon signé. Ah, kàddu gor ca wax ja. Mhm. moo ko wax def na ko comme que waxam la moom boo yeboo tëdd nelaw guddi guddi dina ñëwaat wax waxeet bi. non waxuma loolu de. ah mais mën nañ ko mën nañ ko liiree noonu. non non bul wax loolu. mën wax waxeet bi yàq na. non bul wax loolu xam nga. Mm. loolu aussi. Mm. ñu bëri nga ciy juum. Euh, am naa ci naqar lool président Abdoulaye Wade def na ba def lu weesu lu mu waxoon. Mm. ci teranga Sénégal ak bëgg senegal xam nga li mu wax mooy wax waxee boobu bëgguma ci ñëwaat di leeral sax mais na ma ci la ma ci jublu woon mooy ne nit ki bu ngeen ma waxloo nangam mun naa ko fàtte wala bu nekkee waxoon naa ko aussi ak nu mën a dox ba mu jàpp ne tey lii mooy li gën kon boog nañ def loolu. mais waxee ko mais mais ni ko nit ñi waxee. ni ko bëggee fi ko bëggee dëkkale Ablaye koo xam-xam ne ni ku sàmm kàddoom la ku fonk kàddoom la ku bëgg jëf la la ku bëgg fonk réew la mais loolu bëgg ñu persistant en tout cas fi nga waxee fa fa euh, euh, li nga wax nii euh, te te je crois que c'est quand même une position très courageuse nga nga am benn lecture boo xam ne c'est vraiment sans passion mhm. et en toute objectivité nga wax ko maintenant ci ci loolu yow lan nga gis nga ne li tax sénégalais yi Euh, jox leen lii c'est peut-être pour vous amener à à une réflexion plus approfondie. Oui. que apparemment ba fi ñu toll nii euh, sa gars yi wu ñu ko noonu. mënu laa gisee. waaw bi ñu pertee wote présidentielle ba tey. pertaat député yi ba tey man dama jàpp ne toog wuñ toog bu sérieux pencoo waxtaan ni li ñu dal lu lu lu mu dalee. Mhm. lu ko waral bañ nax suñu bopp bay déglu ku ñuy nax bay déglu ku ñuy jay waaye toog fi rek di fëgg dënn naa ni waaye ñii duñ dem. ñi mën nañoo bañ a dem keneen ñëw ku dul ñun. Mhm. fi ne parti yu mag yëpp Sénégal ñu ngi ci nguur gi ba mu des PDS bu da amoon dal. ak sago bay nax su bu toog waxtaan. Mhm. bàyyi kañanante suñu biir nag dañoo soxorante lool bañante ku nekk ngi tibbal keneen ki tànkam di xool foo ko gas suul ngir ngir indi ko ay gàllankoor loolu loolu aussi dafa am. Mhm. te baaxut. xam nga ay nit bu ñu bokkee am mbir te bu ñu di waxtaan. dinaandoo café boo tisoo la yóbbaale sa café parce que da ngay bañ ñu poson ko sa ginnaaw mhm, mhm, mhm. óoloo kenn kenn ki óoloo la naka ngeen di nasee wàccendoo am ku ko wax loolu am na ku ko waxul loolu am na mel mel loolu la ma ko waral xam nga loolu xam nga loolu alors que ñuy oonte frère ak sœur suñu chance bañ amoon dëgg dëgg muy kilifa gu kilifa muy Ablaye Wade ñëpp bëgg ko mu am xam-xam am jaar-jaar am mën-mën tey wàccoo ñun tàggat nañu jox ñu responsabilité jàngal ñu la mooy bëgg sa réew la mooy yor sa réew la mooy defaral sa réew bu demee te ba war a wàcc euh, loolu bàyyi liggéey boobu dénk ko njaboot gi njaboot gi ñoo war a taxaw am mat gu day ni bàññi xarabante xam nga wax ju ñaaw moo gën a garaaw balu fetal dëgg bu nit defee dara te yow na moo ko woon def d'accord loolu déglu ko seetaan ko neen bu ma sañoon de mu bañ koo def parce que am na looy wax loo xam ne ëllëg pour ngeen dajawaat dina jafe lool dina métti lool moo tax man da li ma gëm mooy bu ñu yaakaar ne ñi nañ lajj ñuy ñëw faluwaat wala ñi nañ tasaaroo ñuy ñëw borox ndol dugg fa falwaat nañ jàpp ne la ñuy fal lu lajj ñii wala seenu tasaaroo wala seenu réeroo mm-hmm. waaye suñu soppite jikko waxin jàngal lañu la naqari askan wi ci bu soppeeku ci jëfin ba nga xam ne dañ ne ah ñii de leneen waxoon xam nañu ko amaan nañ yaakaar ci ñoom di lañ ci bopp réew mi bu loolu amul tamit xam nga li am mooy mm-hmm. waxuma dina ñëwaat ci bopp réew mi ci bopp réew mi mais gëm naa te am naa ci dogu loolu ne te gëm naa te du gëm-gëmlu que njabootu Ablaye Wade kenn dina ci ñëwaat ci bopp réew mi jiite ko yeggale ménga gis-gisu Ablaye Wade ak yéenam ci réew mi méngale ko ak jamonoom ak gis-gisam bu mu koy mottalee mm-hmm. loolu moom gëm naa ko fan lay jaaree kan lay doon mun na nekk bañ a na nekk forcément parti mun na bañ a nekk yoon wa tey jii nekk na président de la République mm-hmm. njabootu Ablaye Wade la woon nekkoon fa ku mu Ablaye Wade fonkoon lool lool lool lool ñu koy xeeb di xarab di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko gaaral di ko xas di ko jaay doole mu jël ber ber ber yoonam ñoom ci kenn gëmu ci woon ne mun naa dañ Ablaye Wade buñ na bante yaakaaruñ ko woon xam nga mais yàlla xal la ko yoon biddéewam fekk ba tey moom la mun na aussi keneen ci njaboot gi aussi mu ne koo cof wala xeeb ko naan màgget na lool wala gone la lool wala euh, amul xorom loolu wala euh, moom dondul nguur wala war naa fal wala warta falu muy doxal rek yàlla na ne moom la def ko ko xam nga buuru ségu ba amoon na ko ko wutu woon ngolo dafa bëggoon ñëw xam kan moo koy wutu ci njabootam amoon ñetti doom dem ca borom xam waa ji ne ko dama bëgg may wutu ci xale yi pour ma ko may ko bët mu ne ko sa sa loolu nga yor sa mooy bàgg bi nga yor na nga ko def seen laax xale yi bu ñuy lekk xale bi mu jëlee bàgg bi da xamal ne moo lay wutu waaye nag amoon na benn doomu jàmbu nekkoon ca kër ga buñ ko dénkoon buñ dénkoon aawam ba ba mu mel ni doomam ci kër ga ba ñuy xale yi lekkee laax ba euh, bàgg boobu xale bi nga xam ne mooy doomu jaam dañ dénkaan ci kër ga ci moom ci loxoom la mu mm. ñëw laaj yaay jabar ji ne ko kan moo mujjee ci xale yi kii bi jaaru bi mu ne ko ah ngoloo ko mujjee mu ne mënta nekk ngolo mm-hmm. waaye yàlla ci mën-mënam bi amul àpp mm-hmm. ci diggante ba def na ay pexeem ba ngolo ma mujj nekk buur ba buur ba jógee foofu <laughs> xam nga loolu aussi. am affaire buuru ah, affaire affaire affaire falu ak njiite. Mhm. kéemaan la mhm. suñu borom da cee wane boppam. dëgg bokk ko kenn. Mhm. mooy tànn ko neex. waxtu wu mu ko soobee. ak ni mu ko bëggee. noonu fu mu ko xaarewul sax léegoo ne yow la mu nekk yow. maintenant euh, euh, Aliou Sow. waaw aussi dëgg jamono démocratie damay bañ na waxee noonu rek yem foofu euh, jullit la mais démocrate la jullit aussi démocrate la. chrétien démocrate la juif démocrate la ah. ñu ñëpp dañu bokk valeur mooy démocratie hmm. mooy yàlla bu ñuy fal aussi dëgg la da ko jaaree doomu aadama yi dëgg la euh, euh, euh, ci bi nga nekk <laughs> di def nii ci sa formation politique et comme ni ma ko waxee rek man vraiment je suis surprise ma dégg la nga am taxawaay mel nii parce que man je je pense xaw ma nag mais dama màgg yow tamit soxna si <laughs> waaw non honnêtement léegi moom léegi moom màgg nga léegi màgg màgg nga waaw waaw waaw léegi en tout cas acquérir benn maturité politique boo xam ne euh, man je pensais que ah, nekk naa fi lu jóge fukki at ministre di nekk ñaari yoon député di ànd ak ay ay ay ay mag nekk guy ànd ak ay morom baayam di leen déglu xamal leen te xamaluñ la. waaw mais mais yow li nga wax nii mën na laa yokk de. waaw kon yow taxawaay bi nga am nii euh, lu tax ma ne c'est intéressant mooy euh, dégguma euh, ñi am xalaat bi nga wax nii en tout cas idée yi nga agité nii yëpp ñi ma gis ñu am ko ci seen parti bi yëpp dañoo dem ber seen daara et yow li nga wax comme ni nga wax nii ne au lieu que gars yi nekk dafa di verser dans l'autoglorification. Mm-hmm. ak di xas ñoom Pape Diop ña dem. Mm-hmm. di leen kokkali naan quatre députés la ñu am ak ñoomin seen. li gënoon important li mm-hmm. ñu toog li jënd seen douze députés yu ñu am mhm. loolu euh, je crois que ni nga ko waxee nii mhm. euh, kenn ku ne bu ko dégg dina xam ne lii mooy waxu dëgg mhm. léegi nag euh, yow Euh, gisoo ne PDS le grand problème mhm. mooy euh, c'est un problème de leadership comme ni ko waxee sànq mhm. soxorante beeg mën xeeb ay nit ak mën kookali moo tax ba kàngam yu bëri jóge fa Macky Sall tey ji bu nekkoon bu fekkoonte ne erreur yooyu amu fa kon xëy na du demee nii mu demee mhm. donc euh, tey ji waa Abdoulaye Wade dem na te lu leer mooy duñu yàlla duñu yonante bi mais lu leer mooy Abdoulaye Wade mënut fi nekkaat président de la République donc comme ni nga ko waxee am na njaboote na ñu bëri formé na ay leader waaye leader yooyu dañ permettre ñu mën a euh, exécuter wala ñu mën a dérouler seen leadership. Mhm. donc tey euh, parti bi yéen a ngi ko jox euh, Omar Sarr muy coordonnateur bu xamu ngeen ko tuddee noonu seen jargon coordonnateur général bu parti bi et lu leer mooy il ne fait pas l'unanimité parce que bu doon def na unanimité ñee duñu dem moom moo ko conduire am na douze députés. Euh, yéen a ngi wax ay congrès au mois de décembre yooyu mais à ce que je sache amagul benn date bu définie yow tey jii gisoo ne li li gënoon urgent ci parti bu toll nii euh, ne parti démocratique Sénégal appareil bu rëy bu doy ne PDS euh, dafa war a xëy na roy ci euh, sunu dëkkandoo ya nekk France am organiser ay primaire gis nga UMP actuellement nii xam nga ci yooyu ci ci yooyu la ñu nekk COPE jóg na Fillon jóg na NKM jóg na ñoomin seen ñoom daate ñëpp ku nekk yaa ngi képp koo xam ne nii leader leader nga ci biir am nga mbooloo si ginnaaw yaa ngi taxaw samp sa ndënd bëgg a xeex kon gisoo ne jot na guddi yi ñi ngeen toll ngeen toog organiser ay primaire seen biir pour mën a euh, relever le défi. xam nga lu nga wax soxna si loolu la lu la wax man lu laa gëm ndax li tax moo ko PDS ci Abdoulaye Wade moom kese ko ci am kenn du ko ci amaat. Mhm, c'est clair. ñëpp nangul mhm. bëgg la óolu la la man de benn njiit la am ci PDS mhm. xaw ay coordonnateur rek ay adjoint ay lu xaw ma ko bi ñuy folle Macky Sall ci adjoint euh, bi dama ne woon nañ tabaat keneen jamono bu ñu taboon kenn jamono jooju. bi nekkee ci nguur gi ñu bëri nangul nañu Ablaye Wade ngir cofeel am na ñu ko nangul ngir loyauté mais am na ñu ko nangul aussi ngir seen teraanga bopp mm-hmm. ñoo ñëpp bu leen boole woon jamono